waaw je pense que missive la ko tuddee. Mhm. boo xam ni daf ko adressé à toute la diplomatie. Mhm. Euh, africaine et du monde en général. Mhm. et à juste titre léeg ah, ci àdduna bu fekkee coow dafa am leeral da cee gën. Euh, on a vécu je pense la dernière fois son histoire ak la les forces de sécurité. Euh, et et et comme je dis li pour dëggal li Assane wax. Euh, je sais pas si c'est fait à dessein ou pas dem naa sax ba mu yàgg ma ne ma mais mais nguuru Sénégal xanaa ñoom quatre heures du matin dañuy réunion ak Ousmane Sonko pour teg ay stratégie daal le rendre victime et le rendre plus fort mm-hmm. parce que tous les actes posés contre monsieur Sonko le fortifie mm-hmm. le conforte mm -hmm. et, et lui donne plus d'aura mm donc après ma ne mais xanaa si fait euh, à, volonté à dessein aussi dafay juum tamit non non je parle pas de njuumte xam nga njuumte Ousmane Sonko. Mm-hmm. Euh, du du loo xam ne tey si je dois constater daf maa intéressé pourquoi intéressé wu ma Ousmane Sonko ne gère pas nos biens. Mm-hmm. ne gère pas les deniers publics. mais il aspire à gérer tamit les biens. non non maa ngi ñëw c'est-à-dire que il ne les gère pas. il aspire à les gérer. parce qu'il pense pouvoir les gérer. Mais n'oublie pas qu'on a confié la gouvernance locale aussi. Oui, oui, maire Ziguinchor. Oui, oui, oui, gouvernance locale boo xam ni euh, c'est une année déjà de magistère boo xam ni aussi ngi nekk démembrement de l'État jàkkaarloog nguur boo xam ni moom day dem ci malheureusement politiser les politiques de développement mm-hmm, mooy nguur boobu nga xam ni mm-hmm. xam na ne am na dotation boo am droit mu bloqué ko huit mm-hmm. mois donc il y problème man boo bloqué lii tax ma war a mën liggéey quand bien même que en tant que maire war nga mën a am ingénieux ingéniosité wu créer tes propres sa ça c'est connu mm-hmm. mais au-delà li nga xam ne am nga ci droit bu la ko nguur xañee ba pare ñëwaat na yaa ngi nii waaw aca looy wax un ngi nii defoo fi dara ça gêne ça pose problème mm-hmm. foofu laay wax ni tey jii nii damay jàpp ni ki tooñ nguuru Sénégal tooñ président Macky mooy ki ko digal si jamono ba mu nekkee impôt ne ko dàq ko xanaa xamoo man bon président Macky kooku laay wër ci dëkk bi <laughs> dinaa ko wër ba téye ko ne ko yow lii yëpp yaa nu ko yaa nu ko teg. parce que kii bu ma ko dàqutoo bàyyi ko muy def son syndicat. waaw mais xam nga dama ne. am na ñuy wax ne dañ ko ko dañ ko dañoo nit la wax ko mais bu fekkoon na ma ko bàyyi na ma ko muy gérer syndicat am. Mhm. di yuuxoo ko tëb a ko dal amaana du mu agsi fii mhm. mais comme on dit aussi yàlla mooy tracer de wu nit yi. tey ji nii dama jàpp ni lii nga xam ne Ousmane Sonko mu ngi ko def adressé ko au monde en général c'est juste pour wan nit ñi ne leen gis ngeen liñ may teg gis ngeen liñ may def donc sama réaction il faut ngeen comprendre ko explication la rek léegi kan moo ko may opportunité wu war a mën a wax ak àdduna bi ki kay teg loolu léegi ki ngaa teg loolu lan la si jublu parce que buggul waa ji sori bëggul waa am doole bëggul waa ji te plus ngay avancer ci sens boobu mais plus waa ji di am doole. Mm-hmm. la meilleure réplique qu'un état pour man ma jàpp c'est vrai que politique nag àdduna bi fépp noonu la mos a doxee bi opposant bi da koy teg coono mais la meilleure façon pour man li ñu naan clouer le bec ak qui de droit en un certain niveau c'était quoi faire de sot qu'il n'y ait pas plus de de, de scandale. Mm-hmm. Bougane a parlé de quatre-vingt-dix-huit milliards bërki dem quatre-vingt-dix-huit milliards ministère des transports terrestres. yi ñu jël yóbbu ko fii et su fekkee ne que ay scandale des séries mu ngi am mais yow yaa jox nit ñi lu ñu amee doole dañuy dénoncer bu ñu dénoncer nit ñi soutenir leen ci dénonciation bi boo jógee ne damay faagaagal nit bi parce que day dénoncer mais non seulement li gën a garaaw da ngay wàcc sa bopp waa ji di gën a am doole nga war a jëm fan nag foo xam ne da di war a jàkkaarloo. Mm-hmm. nga ne non waa ji du bokk ci jàkkaarloo man maay arbitré voilà ce qui fait que. maay def sama sélection. ça marche pas.